الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أعددنا الروح له سكنا yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam gisoon nañ ay mandargaam ci tawraat comme gisoon nañ ay mandargaam ci injil ñi doon jàng tawraat te sellal ak ñi doon jàng injil ca sellal ba sayduna Muhammad feeñee dañoo bàyyi woon injil ak tawraat walbati ko topp sayduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam warqa soo demee ci xilaasu zahab bu moom El Hadji dina la nettali histoire boobu mu ngi wax ne jaat li warqata tahki ma rawahu laha wa qaala naamuusu muusa daki fabtasimi ya laytani kuntu fiha saliman jazian wa kuntu hayyan lada al ixraaji lil mu ne xadijatu dafa ñëw ci warqa di ko nettali li mu gis ci sayyidina Muhammad eh, warqa ne ko eh, mandarga yonent yàlla Moussa ba muy ba ko yàlla di yónni mandarga yam doon feeñal li nga ma nettali ci sayyidina Muhammad mandarga yu mel noonu moo feeñ ci moom kon kon muuñal kontaanal loolu la warqatu wëlbati ko wax xadija ne ko nag maa ngi ñaan yàlla comme que dama màgget keroog ba ko waa Màkka di génnee su ma mënoon a soppeele ko nekk xale bu góor dinaa bokk ci saxaabaam yi kon kooka wëlbatiku na dal di d'accord na sayyidina Muhammad feeñ na wëlbatiku ne te nag la bele woon d'accord na ne encore Seydina Mohamed keroog bu ko waa Makka di génnee muy dem dana wëlbati bokk ci saxaaba yi wëlbati ko jàppale ko kon kon kooku def na témoignage am muy benn deuxième muy Najashi bi yonent bi saxaaba yi bi ñu gàddayee bàyyee ko Makka te mooy premier hijra premier gàdday Éthiopie lañ jëmoon kan lañ fa fekkoon Najashi al-Habashi Najashi labbe la woon mu doon jàng Injil Najashi bi mu ñëwee yonent bi saxaaba yi dal di daw ñëw bokk na ci janfarum janfar waa màkk dañoo jël xaalis bu bari yónnee ko Najashi nekkuloon ci diina islam mooy mu ngi woon ci diina Isa ne ko xale yooyu de dañuy saboté sunu yàlla yi di ñu xas gàddaay nañ ñëw ci yow nga làq leen dañoo bëgg ñu jox la alal ju bari te nga delloo ñu xale yi ndax xale yu baaxut lañu jaafar dal di jog ne see dal di ne Isa dal di wax Najashi ne ko yonent bi nga xam ne ñun dañoo sànk woon dañoo réeroon di jàmm ay xërëm di def lu bon yàlla jël sayyidina maanaam mu bokk ci ñun mu ñuy jox tawxiid di ñu jàngal jikko yu sell di ñu jàngal jikko yu baax ñu walbati ko gëm ko lii moo tax sunu waa réew génnee ñu ñu daw ñëw làqatu ci yow ndax xam nañ ne borom diina nga te suñ te suñ diina bi Mohamed boole nañu ak yéen Mohamed nee nañu yën yéen a ëpp yërmande ci ñun ci juif yi kon ñun suñ diina daf ñu booleeg yéen bu ñu jaaxlee bu ñu neexee daw làqatu ci yéen bu ngeen toggee bu ñu neexee nañu lekk kon ñun ak yéen benn lañ ci wàllu pas-pas te soo weddee xaral ma jàngal la ci al alquran bi ñu sayyidina Muhammad jox mooy lan Jaafar dal ko jàngal suratu Maryam suratu Maryam Maryam kenn ku ne xam ne ne moo jur Isa Maryam kenn ku nekk xam ne ne moo yaayu Jésus Christ Jaafar dal di jóg jàngal ko suratu Maryam ba mu jeex lan la ca Najaashi teg Najaashi daf ci ne e wax jiidee yi moo li ma gisoon ci Injil benn la dal di dal di aar sahaaba yi dal di wax waa Màkka ne jël leen seen alal ji ngeen dem ndax xale yi li ñu fi indi moog li ma doon jàng ci injil salaam même chose kon xale yi seen bopp ñoo nekk ci dëgg moo tax alquran ne lakini rasiquuna fi l ilmi minhum moo tax ña nga xam ne ñoo sax ca xam-xam ca ñoom yàlla mën a yuminuuna ñoo ñu dee ñu gëm bi ma unzila ilayka li ma wàccee ci sa ko yow sayyidina Muhammad gëm nañu ko wa ma unzila min qablika ak li ma wàcce woon te mu jiitu la muy tawraat injil gëm nañu ko wal muqimina salaata ak ñiy taxawal julli wal mu'tuuna zakata ak ñiy joxe asa maanaam ñiy joxe asaka wal mu'minuuna billahi ak ñi gëm yàlla wal yawmil axiri ak gis maanaam ak bis maanaam ak bis penc yàlla mu ne ulayka ñooñu sa nutihim dinaa leen jox man yàlla ajran pay goo xam ne asiman pay gu màgg la man yàlla mu ne groupe boobu yépp dinaa leen jël dugal leen ajjana kon yàlla seedeel na foofu ahlul kitab leeral na ci mbirum Isa leeral na ñi nga xam ne ñoo doon jàng tawraat ak injil te sellaloon ko kenn ku nekk génne nga sa mébét gëm sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam balaa ngay génn àdduna yàlla bàyyi loolu mu ne inna awxaynaa ilayka kama awxaynaa ila nuuhin sayyidina Muhammad njakkuma lay wax yu njakkuma lay yónni maa kunta bid'an min rusuli yonente yi bari nañ am nañu la fi jiitu jiitu woo fi inna ndax man yàlla awxaynaa ilayka damaa wax yu jëmee ci yow boo xamul wax yu mooy damaa wàcce livre ci sa kaw kama aw xëy naa ila nooxin comme na ma joxe woon yonent yàlla nooxun ab téere moom ak sayyidina Muhammad wan nabiin ak yonent yi ñoom it joxoon na leen ay téere min baadihi gannaaw yonent yàlla nooxun wa aw xëy naa ila ibrahim damaa wax yu woon yonent yàlla ibrahim wa ismail damaa wax yu woon yonent yàlla ñoo ñoo jiitu wa ishaqa damaa wax yu woon yonent yàlla ishaqa wa yaquba yonent yàlla yaqub naka noonu wal asbaati ak seeni sët wa isa dama ko wax yu jox ko injil wa ayuba ayuba dama ko wax yu jox ko téere wa yunusa ak yunusa wa haaruna ak haaruna wa suleymaana ak suleymaan wa atayna daawuda zaburan yonent yàlla daawuda ma jox ko téere bu ñuy wax zabur wa rusulan qad qasasnaahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayka am na yonent yoo xam ne wax naa leen seen qissa ci am na yonent yoo xam ne nettaliwuma leen ci ñoom dara kon yonent yi dafa am ñu feeñ comme dafa am ñu nëbbu yàlla mu ne wa kallama lahu Musa takliman yàlla wax ak yonent yàlla Musa en direct rusulan ñoo ñëpp yàlla mu ne ay prophètes lañ mubashirin dañoo ñëw di bégle ñiy def lu baax ne dinañu dem ajjana wa munzirin dañoo ñëw itam di xupp ñiy def lu bon ne dinañu dem safara yàlla mu ne li allah yakuna li naasi ala lay xujjatum baada rusuli wa kana lahu asisan hakiman kon yàlla wax na li tax mu wàccee yonent yi nee na li tax mu wàccee yonent yi mooy bu yowmal xiyaamee benn nit du taxaw ne yàlla wàcce woowoon ci maanaam wàcce woowoon ci man prophète kon lay jeex na li kay la yakuna li naasi pour lay du am ci nit ñi ala lay xujja kenn du am lay ca yàlla baada rusuli gannaaw bu yàlla wàccee prophète yi nga ne man nit ku ñuul laa yonentu Muhammad yonent yàlla Muhammad arab la yàlla ne na yonent yi wa ma arsalnaka ila kaffa li naasi yooyu yonent bi wàccewu ma la yemale ci arab yi dong mais kaffa mboolem ras Muhammad alayhi salatu wasalaam yàlla yónni ko ci moom loolu la koy firndeel mooy ras boo dem ci àdduna bi am na ci ay musulman ras boo dem ci àdduna bi mën nañuy jàng al alquran jàng alquran boo xam ne arab dàqu leen di jàng alquran te sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalaam arab la kon lay jeex na li ala yakuna li nasi ana lay xujja soo gisee alquran yomb lool dafa am ba bu ci nekk amul kenn kuy taxaw yowmal qiyaam ne yàlla aw ma woon njëgu alquran aw ma woon njëg alquran dañ la koy may alquran dañ la koy sarax alquran a gën a yomb ci livre yi deux cent francs kaamil cent francs kaamil wala ñu ne la am yàlla jox la kon kenn ku nekk man ngay am njëgi alquran su seeroon sax nga ne man baadoolo laa mënuma koy jënd waaye amut buur amut baadoolo alquran dañ la koy may gratuitement nga am kaamil alquran noo def maanaam noo def ba mën a jàng alquran gratuitement ñun fii am nañ fi daara joo xam ne kenn du fay kenn du fay dafay ubbi 8 heures 24 heures 24 la daara jiy jàng ku jàng boo génnee alhamdulilahi rabil alamin kenn du fay kon lay jeex na fii ci ndakaaru pour lan mbirum jàng alquran du ci ñun du ci kenn waaye ci mbirum yàlla la yàlla dogal loolu yàlla ko waxoon le kay la yakuna ala naasi xujjatun baada rusuli pour bu yowmal qiyaama kenn du taxaw am lay yàlla mu ne wa kaana lahu azizan aziz mooy yàlla yàlla ci boppam moo notkat bi yàlla daan ñëpp kenn du ko daan yàlla commencé di daan ci firawna ca namrut commencé woon di daan daan firawna képp kuy taxaw di mbër mbërul yàlla daan na la te yàlla kenn du ko daan kon wa kaana lahu azizan yàlla mooy mbër mi xakiman yàlla ci boppam mooy ki xara moo tax yàlla mu ni lakin allaha yashhadu bima anzala ilayk yow sayyidina Muhammad kan moo lay seede ne yàlla ci boppam moo la yoon yónni yàlla mu ne man yàlla maa lay seede waaye seedeeb yàlla nag doy na seede seedeeb yàlla doy na seede yàlla ma ne yonent bi maa lay seede ne yowmal qiyaam man yàlla maa la yónni lakin illaaha yashhadu bi ma anzala ilayka anzalahu bi ilmihi yow sayyiduna Muhammad mooy taxaw téemaña la yowmal xiyaam ne alquran bi maa la man man man yàlla maa ko wàccee ci yow lam yashhad laka haulaai bi nubuwa ñi lay gëm ak ñi lay weddi yowmal xiyaam kenn du la seedee yashhadu laka bi dalika bi ma anzala ilayka min alquran almujiza ki lay sede ci alquran mooy yàlla anzalahu bi ilmihi wal malaikati yashhadun yàlla mu ne anzalahu bi ilmihi xaas lazi la ya'lamuhu ghayruhu bi uslubin ya'jisu anhu kulla balighin yàlla mu ne yonent bi ma wàccee ci alquran te alquran nekk xam-xam boo xam ne man yàlla kese ci sama xam-xam la yàlla mu ne kenn waxul ma ne indil alif yàlla mu ne kenn waxul ma ne indil xalaat bii yàlla bi muy xalaat alquran toogal ak kenn toogal ak malaayika toogal ak yonentu toogal ak kenn mais alquran bi xalaatu yàlla kese la moo tax mu ne alquran bi ci boppam yàllaa ko wàccee ci yow anzalahu bi ilmihi yàllaa ko wàccee ci xam boppam kon yàlla moo lay seede ne alquran ci yàlla la bàyyee ko wal malaikatu yashhadun malaayka yi taxaw di la seede yow sayyidina Muhammad ne alquran bi yàlla la ko jox comme que yàlla dina la seede mais wa kafa billahi shahidan ku yàllay seede mais yàlla doy na seede wa kafa billahi shahidan yàlla doy na seede yàlla bàyyi loolu mu ne inna allazina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan baidan inna allazina kafaru ñi nga xam dañoo weddi yàlla gëmuñu alquran ñu yeneen ci bi yemuñ ci waaye wasaddu an sabilillahi ñuy baare nit ñi ba du mën a jaar ci yoonu yàlla yàlla mu ne faqad dallu ñoo ña sànku nañ dalalam baidan sànku goo xam ne sànku gu sori la yàlla mu ne ñooñu réer nañ yàlla mu ne ñooñu sànku nañu sànku nañ wàcce nañ yoon bu baax wi gëm yàlla moo leen jigoon wala bu ñu gëmut yàlla boog ñu mandu waaye weddi na weddi nañ yàlla te du ñu gëm yàlla ñu gëm yàlla moo tax yàlla mu ne faqad dallu dalalam baidan ñooñu dee sànku nañ sànku goo xam ne sànku gu sori la yàlla mu a ina lasina kafaroo ñi nga xam dañu weddi yàlla yemuñ ca weddi ga waaye wa zalamoo ñu wëlbati ko di tooñ di ca teg lam yakun ni laahu la yaxfira lahum yàlla mu ne yonent bi yàlla du leen jéggal wala li yahdi wala li yahdiyahum tariqan te ñooñu yàlla du leen gindi teg leen ci benn yoon am na benn yoon rek bu mu leen di teg yàlla mu ne moo yoonu jahannam te moo yoonu safara moo tax mu ne ila tariqa jahannam xaalidina fiha a wa kaana dalika ala llahi yasiran yàlla mu ne ñi weddi bañ a gëm yàlla yàlla mënu a duma leen gindi du leen teg ci benn yoon am na yoon bu ma leen di teg de mooy tariqul maanaam mooy tariqu jahannam mooy yoonu jahannama te yàlla mu ne xaalidina fiha abadan dañ fay sax ba abadan wa kana dalika ala llahi yasir yàlla mu ne mu gind la teg la ci yoonu jahannama nga dugg fa sax fa yàlla mu ne loolu yomb na ci man man loolu yàlla jëfewut ci man yàlla bàyyi loolu mu ne yaa yohan naasu e yéen nit ñi gis nga foofu waxul ñi gëm sayyiduna Muhammad mais yéen nit ñi ñi yéeféer yeeg jullit juif yeeg nasaraan yeeg ñëpp ci appel boobu yaa ayyuha naasu e yéen nit ñi yàlla mu ne qad jaakum rasulu sayduna Mohamed alayhi salatu ñëw na ci yenn rasul boobu sayduna Mohamed la yu sayduna Mohamed ñëw na lan la indiwaale yàlla mu ne ñëw na mais dafa indiwaale bil xaqi dafa ñëw indiwaale dëgg dëgg gi fan la bàyyeekoo su bàyyeekoo ci nit te gëmoo kooku ba la neexee nga weddi ko waaye yàlla mu ne sayduna Mohamed ñëw na indiwaale dëgg dëgg gi ci kan la bàyyee ko yàlla mu ne min rabbikum bàyyee ko ci seen borom mais fa aminu gëm leen dëgg googu gëm leen ko ndax su ngeen ko gëmee xayran lakkum mooy nekk jàmm ci yéen wa in takfuru su ngeen ko weddi fa inna lillahi ma fi samawati wal ard weddi gi ngeen ko weddi mënta yokk yàlla comme weddi gi ngeen koy weddi mënta wàññi yàlla ndax yàlla moom moom li nekk ci asamaan yàlla moom moom li nekk ci ko suuf wa kana lahu aliman hakiman yàlla mooy xam te yàlla ci boppam mooy ki xarala yàlla bàyyi loolu muy dellusiwaat ci yahud yi yàlla mu ne yaa ahlal kitaabi laa taxlu fi diinikum yéen ñi ma jox téere yi muy yahud yi ak nasaraan yi ak jullit ñi yàlla mu ne bu leen fanatique ci seen diina bu leen fanatique ci diina laa taxlu fi diinikum bu leen fanatique ci diina fanatique ci diina moo jàppoon ñu njëkk ña ba ñuy jaamu xërëm fanatique ci diina moo dem ba ñii ne yahud yi ne Usayru mooy doomu yàlla fanatique ci diina moo dem ba jàpp yenn ci nasaraan yi ñu ne Isa mooy doomu yàlla fanatique ci diina dina dem ba jàpp ci jullit ñi ñu jël place yàlla di fa teg keneen kon la taxloo fi diinikum bu leen fanatique ci seen diina la yàlla wax dafa am yoo xam ne bu nekkul shirku itam yoon la wuy yóbbu nit ki ci shirku hunaka ashyaun in lam yakun sharik euh, in lam yakun shirkan fa innahu tariqun ila shirki dafa am loo xam ne même bu ñu ko tuddewul bokkaale yàlla bu ñu ko seetee yoon la boo xam ne ku ca jaar booy sàggantu di nga bokkaale ji yàlla yoonu yàlla nag maanaam lépp loo xam ne bokkaale yàlla yàlla da koo tere lépp yoon woo xam ne boo ca jaaree mu yóbbu la ca yàlla yàlla da koo kon yàlla neen yaa ahlal kitaab yi e yéen ñi ñu jox téere yi laa taxlu bu leen fanatique fii diinakum ci seen diina wala taqulu bu leen wax encore an laahi ci yàlla ilal xaq lu dul dëgg lépp looy wax muy jëm ci yàlla yàlla mu ne bul wax ci yàlla lu doonul dëgg bul maanaam bul bëgg lu neex nit ñi ba nga bàyyi waxu yàlla di tagg nit ñi boo ko waxee fenal nga yàlla bul bëgg alalu doomu aadama maanaam bul bëgg alalu àdduna ba tax nga bàyyi yàlla wëlbateku di seetlu neex doomu aadama yi wala ngay ba tax ngay bàyyi alquran dem di waxu lu neex nit yàlla mu ne bul def loolu wala taqulu ala llahi ila alxaqa kuy wax ci yàlla na nga wax dëgg innama almasihu yàlla mu ne masihu te mooy isa ibnu mariam yàlla mu ne rasulullahi yonentab yàlla la du doomu yàlla mais rasulullahi yonentab yàlla la wa kalimatuhu ak baatub yàlla yàlla nga ko liggéey ci kun fa yakun yàlla mu ne alqaaha yàlla moo jël kaddu googu sànni ko ila mariama ca mariama kon yàlla mu ne Isa kàddu yàlla la wa ruuxun minhu nekk itam ruuxu yàlla fa aminu billahi gëm leen yàlla wa rusulihi ak yonentam yi yépp ban ci weddi kenn wala taqulu salaasatun bu leen wax ne yàlla ñett la bu leen wax ne Maryama la ak Jibril ak Isa bu leen wax ne ñett la Sëriñ Tuubaa mu leen di tontu di wax ne yaa jumlatan qad sallasoo bi dalalihim man lam yakun walidun lahu aw waladu axrajtumuni naatiqiina bi annani mujahidun wa inni li wajhi llahi jalla ujahidu sëriñ Tuubaa mu ngi leen di tontu yaa jumlatan qad sallasoo bi dalalihim man lam yakun walidun lahu aw waladu yéen mbooloo mi nga xam ne yéen a ngi yéen maanaam euh, euh, yéen yéen a ngi ñetteel yàlla ci seenu sànku yéen a ngi utal ñett koo xam ne amul doom koo xam ne amul bàyyi kon la walaa taqulu salaasarun bu leen wax ne ñett la intaho arrêté leen ci wax jooju xayran moo gën lakkum pour yéen innama allahu ilahun wahidun yàlla benn yàlla kese la subhanahu yàlla dépassé na ki ñu koy nat na nirooleel yàlla dépassé na muy am doom an yakuna lahu waladun yàlla dépassé di am doom doom nit a ko soxla ngir lan balaa ngay retraité sa doom ñu embauché ko moom ma lay jëndal saa koo ceeb kookoo soxla doom maanaam nga am doom pour boo dee bañ a effacé wu kookoo soxla doom yàlla yàlla du effacé wu yàlla du lot yàlla du retraité yàlla ñàkkul yàlla màggatul koon yàlla soxlawul doom subhanahu an yakuna lahu waladun lahu ma fi samawati wa ma fi l ard wa kafa billahi wakilan yàlla ñàkkul kuy ñàkk moo soxla doom ko bañ a effacé wu mooy soxla doom waaye yàlla mu ni yàlla dépassé na ñu di ko utal doom yàlla moom li nekk ci asamaan yàlla moom li nekk ci kaw suuf wa kafa billahi wakilan képp kuy wakirlu yàlla doy na wakirlu kay képp kuy yaakaar yàlla doy na yaakaar kay këpp kuy jàpp yàlla doy na jàpp maanaam jàppeekaay wa kafa billahi wakilan yooyu yëpp nag ay niveau de gëm la maanaam gëm yàlla degere la gëm yàlla degere la kii gëmum fii la yegg kii gëmum yegg fii gëm kii gëm yegg fii ku la gën a gëm yàlla di nga dem ba ne ko dof nga ngir lan la muy gëm du bokk ak li nga gëm la muy wax du bokk ak la ngay wax lay principe am du bokk ak say principe Serigne Touba looloo ko jàppoon ba tubaab yi ne ko dof nga xalo safihun li kaw nii lam aqaf wa maa rajawtu siwa rahmani sil qadar gaa yi nee nañ dof la ngir lan ragaluma kenn ku bokkul ak yàlla yaakaaruma kenn ku bokkul ak yàlla gaa yi ne dof laa moo tax mu ne alhamdulilahi in kanat safahatuna iqamatul wirdi wal askari wal fikari maa ngi sant yàlla ci dof googu sama ndof gi su fekkee doonul dara lu may di julli ak di sabal yàlla ak di wéetal yàlla yaakaar yàlla ragal yàlla jàpp ci yàlla bu fekkee looluy sama ndof kon alhamdulilahi ci googu nit ki gëm yàlla am tawxiid dëgg la muy gëm du bokk la nga gëm la muy jàpp du bokk la nga jàpp la muy yaakaar du bokk ak la nga yaakaar loolu ala kulli xaal doomu adama bu nekk na ci bàyyi sa xel kon wa kafa billahi leen doy na ci yàlla jafandu doy na ci yàlla jafandu wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu yàlla mu ne ku jàpp ci man man yàlla maa lay jël en charge yàlla mu ne lan yastankifa masihu an yakuna abdan lillahi mais isa moom jombalewul kon nañ wax ne jaamab yàlla la doo maanaam maanaam di tagg nit di tagg nit xam nga yonent bi doon na wax ne la la tatruni kama atrati isa euh, maanaam kama kama atrati nasara na euh, kama la tatruni kama atrati nasara isa bu leen ma di tagg comme ne nasara ñi taggee isa sayyidina Muhammad bëggul ku ko tagg parce que di tagg nit dem ba jël ci turu yàlla yi benn tuddee ko ko walla ngay tagg nit dem ba am loo koy askanalee digganteem ak yàlla loolu ci boppam dafa xaram qat'an yonent bi doon na wax ne tur yi ngeen may woowee tur bi ma ci gën a neex mooy jaamab yàlla abdullahi jaamab yàlla lan moo ko gën a modeste Serigne Touba kan moo ko ëpp daraja ci yàlla ban tur la tuddee boppam xaadimu rasul jawdinu yonent bi jawdin mooy mbindaan mooy mbindaan ñu ñu gën a ñu ñu gën a négliger ci àdduna bi mooy bon yi mooy bon yi dañ ne moom lañ gën a négliger Serigne tuubaa xool tur wi gën a suufee tur wi gën a dëppoo ak jox sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam respect mu tuddee ko boppam xaadimu rasul jawdin mooy jawdin ci wolof boo ko firee ci mbindaan maanaam boo ko boo ko firee ci nasaraan mooy mbindaan mooy bon bonab yonent bi mooy xaadimu rasul mbindaanu yonent bi ngir lan wàccee boppam ci kanam sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax yàlla mu ne Isa mais jombalewut boppam doon jaamab yàlla mais jaamab yàlla ndam la jaamab yàlla ndam la comme que ku jaamuwut yàlla jaamu keneen ku jaamuwut yàlla jaamu leneen yow nga bàyyi fi leneen dàkkantele sa bopp jaamab yàlla loolu mooy wane ne yow kenn colonisé wut la yàlla la colonisé yàlla la colonisé fii fii daan nañ fi jàpp njàmm daan nañ fi jàpp ay jaam ay jaam amoon nañ fi yow doonoo jaamab sàmba doonoo jaamab demba mais jaamab koo doon yàlla doon jaamab yàlla mais grade la kon yàlla nee na lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi mais isa jombale wut boppam doon jaamab yàlla walal malaikatul muqarrabun malaayika yi jege yàlla jombale seen bopp doon jaami yàlla yàlla mu ne waman yasta waman yastan waman yastankif an ibadatihi képp ku jombale boppam doon jaamab yàlla wa yastakbir ngay rëy rëylu doon jaamab yàlla yàlla mu ne fa fa fa sa yaxshuruhum ilayhi jamian yéen ñépp yàlla dina leen dajale yowmal qiyam kenn ku nekk da nga of ci buntu jahanama mu ne fa amal lasina amono wante ñi nga xam ne gëm nañ waa amilu saalihaat te ñuy def lu baax yàlla mu ne fayu wa fihim ujurahum ñooña man yàlla dina leen jox seen pay wa yaziduhum te dina leen dolli yàlla mu ne dina leen dolli min fadlihi ci baaxaayam kon yàlla du la fay sa kese waaye daf lay fay sa soldu ba pare wëlbatiku ci baaxaayam nag dal di tibb dal di la jox loola ña koy am yàlla mu ne mooy ñi gëm nag tey def lu baax wa ama lazina stankafu wante ñi nga xam ne dañuy jombale seen bopp doon jaamab yàlla ñi nga xam ne dañuy jombale seen bopp tolloog sayyidina Muhammad alayhi salatu salaam garat wastakbaroo ñu rëy rëylu yàlla mu ne fa yu'assibuhum asaban aliman ñooñu yàlla dina leen mbugal mbugal mu métti wala yajiduna lahum min dunihi min dunillahi waliyan wala nasiran te yàlla mu ne ñooñu du ñu am kenn ku leen jàppale bu leen yàlla di dóor du ñu am kenn ku leen di jàppale bu leen yàlla di pine yàlla bàyyi loolu mu ne yaa ayyuha naasu ba léegi ay yéen nit ñi gis ngeen ko nit ñi yahood yeeg nasaraan yeeg jullit ñeeg ñépp la yàlla woo foofu xat jaa akum ñëw na burhanun ay preuve min rabbikum bàyyeekoo ci seen borom alquran ñëw na leer naññ bàyyeekoo ci yàlla yàlla mu ne wax anzalna ilaykum nuuram mubinan wàccee na ci seen biir leer goo xam ne leer guy jolle la muy alquran alhamdulilahi bi ñu ko wàccee ci Sénégal démb Sénégal yépp démb leer la yàlla mu ne fa amal lazina amanu billahi ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla waaw ku gëm yàlla nu muy mel yàlla mu ne wax wa'tasamu bihi ku gëm yàlla dafay jàpp ci alquran dafay jël alquran mu nekk kàddu yàlla mu gënal ko kàddu kenn ku ne dafay jël ndigalul alquran mu gënal ko ndigalul kenn ku ne dafay jël sayyidina Muhammad jiital ko teg ko maanaam teg ko ci kanam ñépp mu nekk patron islam ku gëm yàlla noonu lay mel yàlla mu ne ñooñu fa sa yudxiluhum fi rahmatin ñooñu yàlla dina leen dugal ci yërmande yërmande yàlla mooy leen mais ajjana la yàlla mu ne dina leen ñooñu dina leen dugal ci yërmande ñooñu dina leen dugal ci yërmande min hu maanaam yërmande gu bàyyeekoo ci moom yàlla mu ne ñooñu dina leen dugal ci yërmande gu bàyyeekoo ci yàlla wa fadlin yàlla mën a ñooñu dana leen jox itam ngëneel dana leen dolli wa yahdihim ilayhi te yàlla mën a ñooñu dana leen gindi dana leen gindi jëmee leen ci man dana leen gindi teg leen ci siraatam mustaqiman yoon woo xam ne yoon bu jub la yàlla nag mënu yonente bi yastaftuunaka gaa yi dinañ la mos a laaj dinañ la mos a laaj waaye bu waaye buñ la laajee neel qulillaahu yuftikum yàlla moo leen di tontu fil kalaalati ci ku dee bàyyiwul doom bàyyiwul dara inimruun halaka bu fekkee nit ki dafa génn àdduna laysa lahu waladun te amul doom walahu uxtun ay laysa lahu waladun amul doom walahu uxtun te moo am ay sœur fa laha nisfu ma taraka sœur bi dafay xaaj genn wàllu alal ji jël ko wa huwa yarisuha kon sœur bi mooy doon genn wàllu alal ji in lam yakun laha waladun bu fekkee kii dee amul doom ci wàllu miraas la ci lay dellusiwaat fa in kanatas na tey nii bu fekkee sœurs yi ñaar lañ fa lahuma sulusaani dañuy xaaj alal ji jël ceer bi jox ko ñañ jox ko ñaari sœurs yi mi mimma taraka lam bàyyi woon wa in kaanu ixwatan rijalan wa nisaan bu fekkee ñi mu bàyyi day sër yi dañoo nekk ay góor ci jigéen yàlla mu ne fali dakari mislu hasti unsayayni euh, maanaam góor gi dañ koy jox cërub lu tolloo ni cërub ñaari jigéen ñi yàlla mu ne yubayinu lakum yàlla ñëw na pour leeral leen anta tadilloo ngir lan yàlla mu ne boo gisee ma leen di leeralal yàlla mu ne damay bañ ngeen reer wallahu bi kulli shay'in alim nañ xam ne lépp lu nekk yàlla subhanahu wa taala xam na ko kon mbokk yi ci kàttanul Euh, ci bésu ajjuma bu màgg bi ñuy bàyyi xel ne suratu nisaa it ñu commencé woon ko ca koor ga yàlla jeexal na ko ci kàttanul yàlla bés ni tey jii seen mbokk mi leen ko doon defal nekkoon seen mbokk Mouhamed Taïb Socé te ñuy fas yéene ni ñi nga xam ne noonu la ñu suivre kaamil bi dem ba wàcce ko ba mu jeex incha allah ci kàttanul yàlla dinañu fas yéene di ko tafsir li ñu doon jàng muy neex yëpp mooy kaddu yi ñuy firi ñu xool kaddu yàlla na mu mel bu même bu fekkee xamoo li muy wax ci sa xol rawati nag buñ koy wax ngay xam la muy jàng dégg nga waa daf koy jàng ba mu yàgg muy jooy kenn ku ne boo xamoon la ngay wax sa xol ci boppam dina fees di nga xam ne kaddug yàlla doo ko jël di ko tollalee kaddug kenn te il faut dinañ jël respecté alquran ñuy ñaan yàlla ci bisu àjjuma bii yal na yàlla wàccee jàmm ci réew yal na wàll yal na yàlla wàccee jàmm ci àdduna bi yëpp ñi doon jullit ak ñu doonut jullit yal na yàlla boole seen yi gindi leen ba keroog ñuy dooni jullit yal na yàlla leeral seen xol te gis nañ ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi Sénégal li xew ci yeneen réew yi xer xewu fi doo xàmmee catholique Sénégal doo xàmmee juif Sénégal doo xàmmee jullit ñëpp a ngi dund ci jàmm loolu la islam santaane Seydina Mohamed daan na daan na daan na recevoir laa wax daan na recevoir ay chrétien ci biir jàkkaam Seydina Mohamed waxtu najaraan nasaaraan najaraan Seydina Mohamed daan leen recevoir ci biir jàkkaam loolu la ñu islam wax loolu la ñu islam sant ñu di ko dundee yàlla wàccee xéwal yàlla wàccee jàmm bàyyi kilifay àdduna yi yàlla jox leen ndam bañ am ndam ci lislaam am ndam ci dina ji kon seen mbokk Mouhamed Tayib Sow si ci micro bi seen mbokk Baye Ndaw ak Serigne Thioubou ci mbir maanaam ci cabine micro maanaam ci cabine technique bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa الحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع عددنا الروح له سكنا عددنا الروح له سكنا